mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax baax ci seen émission gox bi di dalal tey Doune Pathé Mbengue nekk euh, maire bu commune bu Cambérène monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ci émission gox bi. mon frère maa ngi lay jaajëfal bu baax di la nuyu vraiment ci euh, opportunité bi nga ñu jox pour communiquer. alors tey euh, xam nañ ko préparatif li nga xam ne moom moo jëm ci appel bi moom moo gën a nekk ci say activité fan ngeen toll d'abord ci wàccaay bi. macha allah ñu ngi ci wàccaayu. Euh, cent quarante deuxième édition de l' appel de Seydina Limamoulahi al Mahdiul Muntasar euh, fi ñu ci toll euh, ginnaaw ba ma nuyoo sant kilifa yu Cambérène tàmbalee ci nuyoo ak ziyaara boobu Mouhamadou Makhtar Laye xalif général des Layènes ak mbooleem njabootu ahlul beyti rasul ci Cambérène ak ci mbooleem Sénégal mboolem àdduna nuyu mbokki Cambérène kilifa yi euh, chef de village notable yi délégué de quartier yi ñëpp ñi nga xam ni yàlla jox na leen ndombay tànk ci dëkk bi mboolem jeunesse su Cambérène ak jigéen ñi ci seen taxawaay ci Cambérène sant na leen bu baax ci jàppale gi ba ñu accompagner ñu ba teg ñu ci mairie bi wàccaayu appel bi comme ni nga ko xamee senegal yëpp xam ko euh, appel dafa nekk ajibo mooy tur yi bàyyi laa yëkkati woon dafa nekk événement bu particulier événement phare damay wax ni sax c'est l'une des plus grandes manifestation sinon la plus grande de dakaar événement religieux bu toll ni appel je pense que Euh, c'est unique dayo boobu mu am nag moo tax dëkk yi nga xam dañuy recevoir appel bi euh, te Cambérène bokk ci muy Cambérène Yoff Ngor Cambérène nekk capitale bi ndax mooy daarul hijrati mooy dëkk bi Seydina Limaamu sanc senegal yëpp wuy si ko Waalo Kajoor Gànjool Casamance Sine Saalum fépp juge ñëpp juge fa dégg woote bi ñëw wuy si ko loolu mooy Cambérène moo tax boo ñëwee Cambérène di nga fi fekk Sénégal entier muy dalal appel bi ci première jour bi ñu xam ni commune bi amul beneen rôle bu dul servir les populations de Cambérène dans sa diversité la parce que mooy dëkk naa Limamou mais tey jii Cambérène boo fi ñëwee di fi fekk kurus yëpp. ñëpp. tiijan murit tiijaan laayeen ña ñaseen damay naan Cambérène daal capital diine la ndax mbooleem tarixay yi Sénégal di ngeen fi fekk te noonu la joxee cër aussi jàngu bi donc événement la ba nga xam ni ñëpp fiy daje donc commune bi bëgg ci am taxawaay ndonte xat na ndax diggante bi ñu fale ñuy def prise de service ak appel bi daanaka ay fan la mais lépp la nga xam ni war na ci taxawaay jëmee ci commune bi ñu ngi ciy dox ay jéego comme ni ñu ko fekkee ci terrain bi ñuy visiter travaux bi travaux VDN bi dem dajeeg jeunes yi nga xam ñoo war a taxawee set setal bi ñu appuyer leen en matériel noonu lañu demee ci site yëpp yi nga xam ni dafay nekk site yi nga xam nit ñi dañ fay jaar pour yaatal ko ba incha allahu appel bi mën a jàll mën a am ci anam yu mu gën a selle anam yu mu gën a rafet. wax ci jamono joo xam ne ñu ngi leen di teg ci toogu bi yàggul euh, tey lan moo war a nekk tey chantier bu njëkk euh, bu dun paatee meng pour commune bu Cambérène. waaw euh, chantier yi bari na nag. da nga ni sànc bu njëkk mais tey jii su fekkoon dañuy wax priorité yi ci biir Cambérène presque ñun bi ñu diagnostiqué bi ñu jàngatee mbir mi saytu ko priorité yi dafa bari euh, lu jëm ci cadre de vie environnement priorité la moo tax fan yi yëpp ngeen gis ni ñuy désencombré dëkk bi yaatal mbedd yi ba nit ñi yëg ni Cambérène mu ngi soppeeku ci xar kanamam ndax loolu moom lañ doon wax ci campagne yi mais loolu la ñuy fas yéene jëmmal ak waa Cambérène may wax ci samay communication chaque fois ni benn nit mënul def benn groupe du équipe municipale bi kese mooy def mais ñëpp a ciy ànd te macha allah kilifa yi noonu lañ ko bëggee noonu lan ñuy encouragé ci yoon woowu noonu lañ ñuy joxee ndigal ni ñu ah loo leen mënti lu baax ci dëkk bi ngeen def ko moo tax macha allah environnement bi cadre de vie bi dëkkuwaay yi dafa nekk priorité ci ñun mais dañ fi fekk aussi ay dossiers yi nga xam ne priorité ci ñu foofu dossiers yi toll. waaw muy dossier bi démb ñu dem réunion nationale jàkkaarloog ministre de l' intérieur comité d' organisation appel ma leen di jaajëfal au ci seen taxawaay ñu fàttali gouvernement du Sénégal urgence su assainir Cambérène ndax Cambérène dafa bokkoon ci les di villes yi ñu war a assainir mais malheureusement ñetti at ngi ni travaux yi daanaka arrêté donc priorité la ci ñun ñu dox ay jéego ànd ak. kilifa yi Sénégal autorités yi nga xam ne ñoo war a taxawal loolu ONAS en particulier pour ko assainissement boobu ñu concrétiser ko sur le périmètre de la commune donc loolu priorité la mais it euh, priorité ci VDN bi VDN 3 bi ba sax am nañ promesse ni dinañ ko ubbi au plus tard le 3. laata appel bi. laata appel bi ndax dafa doon lu am solo ci pèlerin yi mais lii permettre Cambérène aussi mu mooy ndax depuis travaux yi commencé dëkk bi xat na biir Cambérène metti na poussière bi bruit bi Cambérène vivre na ci at yi ay situation yu difficile ñuy profiter occasion bi aussi di lancer appel euh, aux autorités Ageroute bi nga xam ne mooy réaliser ouvrage bi ñu am bàyyi xel bu baax dommage yooyu nga xam ni Cambérène mi ngi koy suivre te am na nañu yaakaar ni dinañ réagir favorablement ci bépp projet d'aménagement bi nga xam day jëm ci voirie bi jëm ci les voies secondaires ci biir Cambérène incha allah. Mhm. yaa ngi ko wax assainissement cadre de vie bokk na fi euh, yitte wala priorité yi nga xam ni. Euh, bëgg nga ko yeggali naam dooroon na mais tey fan nga ci toll naam ay jéego def ngeen ko ci yeneen ko ciy tàmbalee def xàll yi Cambérène wax nga ko léegi xat bi xat na lool tali yi itam am na nu mu demee ndax yaa ngi ci as accompagner askan wi ñu ngi la ciy topp ci loolu. macha allah euh, mon frère. li tax ñu gën a am yaakaar ni mbir mi dina changer mooy Cambérène yépp a pare góor jigéen mag ndaw ci soppi xar kanamu Cambérène mais ci yeesal Cambérène donc bi ñu ñëwee yàggul mais action yi nga xam ne ñu ngi koy commencé jëmmal déjà ñu ngi ciy recevoir ay encouragement ci côté yépp nit ñi ànd ak ñun ci yeesal Cambérène googu ñuy wax ci changer xar kanamu Cambérène may profité occasion bi di remercier ñu ñuy encouragé mais di leen wax ni aussi dama leen koy delloo ndax remerciement yi ñoom ñoo ko am ak félicitations yi di leen di woo ci jàppale gi ci suivi bi kenn mënul defar du benn équipe municipale mooy defar du benn nit mooy defar duñ paate kese ci Cambérène mënul lu bari mais bu fekkee ñëpp ànd nañ ci jàpp. li ñu bëggal suñu dëkk dinañ ko mën a réaliser incha allah donc sant yàlla bu baax di massawu di encourager les transporteurs de Cambérène ànd nañ ak ñun ci liggéey bi les mécaniciens de Cambérène ànd na ci ci ñun ci liggéey bi les charretiers yi nga xam jël ay mesures yu dal seen kaw yi gis na ni. ànd nañ ak ñun ci gis-gis boobu nga xam ni mooy Cambérène bu yees. Cambérène gu gees euh, boobule ndax euh, maire bi Doudou Pathé Mbengue tàllal na si ña nga xam ni tey ñoom la doon jogante mën nañ ko bañ a tuddee sax njogante parce que ñu ne liste consensus tey moo tax nga nekk fi bokk moomeel est-ce que ñooñu pare nañ wala pare nga pour tàllal leen loxo ngir ñu ñëw liggéey Cambérène bu fekkee ni itam loolu moo leen soxal. waaw macha allah euh, effectivement dañoo dem jàngonte mu amoon ay liste suñuy frères rek suñuy sœurs yu demoon élection ci démocratie euh, ñu gañe gañe bu mucc ayib macha allah euh, ñu demee nag ci élan wu consensus unité ndax ñun ñoo doon la grande coalition de l'unité consensus boobu ci leen fas yéene dox ci leen fas yéene ànd képp ku bëgg a jàpp ci liggéey bi muy suñu frère yi ñu doon jonganteel ci élection yi ak ñeneen ñi nga xam ni sa peut-être politique au sens propre intéressé wu leen mais li leen soxal mooy dëkk bi Cambérène baax Cambérène rafet Cambérène taaru ni ki tolluwaayam Cambérène ci wàllu diine ci li muy représenté ci dakaar ak Sénégal ñu tegaat ko foofu teg Cambérène foofu ci loolu ñu ngi ci woo ñëpp du ma diw wala diw mais kilifa gi en commençant par le xalif général ci loolu la ñu woo ci la woo mbooleem kilifay Cambérène jeunesse bi ci la leen woo femmes yi nga xam ne aussi dañoo am taxawaay ci Cambérène ci la leen woo mhm. donc ci vision boobu la ñuy liggéey ensemble pour relever les défis. bu ñu nee Cambérène itam ne dëkku diine ah euh, gis nañ lu muy représenté ci biir Ndakaaru est-ce que tey mairie bi mi ngi xalaat benn aspect wàllum tourisme boo xam ne mun nañ koo jëmmal fii ci diwaanu Cambérène. macha allah tourisme religieux comme ni mu koy waxee Cambérène déjà euh, dafa héberger yàlla daf ñu baaxee ñu am Seydina Issa Rouhou mu tëdd Cameroun ñu gëm ni mooy doon démb moo waxoon ci bersa ba inni abdallahi aatani al kitaaba wa jaxalni nabiyan wa jaxalni mubaarakan aynama kunt kii moo tëdd Cameroun mu intéressé Sénégal intéressé àdduna ku ne ñëw jàmmalaay di ziar donc Cambérène on veut que Cambérène soit une ba nga xam ni àdduna da koy bàyyi xel naam à l'interne am na mais am na suñu vision mettre en place ay infrastructures d'importance religieuse ay infrastructures yi nga xam lu jëm ci institut islamique musée bibliothèque moderne avec toute la documentation bi nga xam ni dafay jëmmal dayoo kilifa boobu muy Seydina Issa Rohou Laye le première xalif de Seydina Limamou Laye dañoo bëgg mu rayonner parce que dayo boobu mooy dayo Cambérène donc effectivement tourisme religieux bokk na ci axe yi nga xam ne wax nañ ko ci suñu programme bëgg nañ ci liggéey mais dañ ciy lëkkaloog état du Sénégal. parce que Seydina Issa du pour waa Cambérène rek du pour Laayeen nii mais pour àdduna la pour Sénégal incha euh, dafa mel nii buñ ko waxee dañ naan des fois dëkkuwaay bi xat na. mais est-ce que am nga mairie bi am na projet wala am na xalaat boo xam ne euh, du mën a yeesalaat dëkk bi de waaye améliorer tey condition dëkkin bi. waa effectivement mairie bi am na vision am na taxawaay pour lépp luy yeesal ñu taxaw ci. fi ñu commencer mooy ci tàmbali comme ni mu la ko waxee améliorer l'environnement et le cadre de vie c'est une priorité mm-hmm. dans un première temps mairie bi en fonction de moyens yi mu am ak partenaire yi koy accompagner on faire mais lu mel ni projet de restructuration partielle de certains quartiers yi nga xam ne da koy laaj ñu ngi ciy xalaat. kilifa gi parce que Cambérène lépp lu ñuy def rek dañ ciy xalaat dañ ciy lëkkaloo kilifa gi ak kilifa yi donc ci vision boobu ci approche boobu noonu approche unitaire intégrée ci la ñuy fas yéene lépp lu ñuy def rek ñu def ko effectivement dañoo bëgg Cambérène moderne moo ko ay cité yu viable avec des habitations yi nga xam ni dañuy nekk ci environnement vraiment bu mucc ayib loolu la ñuy rêvé ndax mu amuñu lu ëpp Cambérène donc ci Sénégal ba nga xam ne aussi ci trajectoire boobu la nekk day faral di wax nii c'est un vœu c'est une volonté tout simplement le président Macky Sall quand il dit Sénégal émergent dañ ko war a gëm ñun Sénégal yi. commencé ci ñu dooleel collectivité territoriale yi ñoom fii collectivité territoriale yi communes yi aussi jël seen responsabilité xam ni dañoo war a servir le Sénégal. volonté boobu bu amee ci kenn ku nekk l'émergence est possible et partout dans le Sénégal. donc man dama bokk ci maire yi nga xam ne dañoo gëm ni le Sénégal peut être émergent le Sénégal doit être émergent parce que Sénégal dayoom toll na lool pays émergent yi ëppale woon ñu dara ci ay nit ñu baax ci istoire bu riche ci pas-pas ci ñun la des kenn ku nekk xool lan mooy sa taxawaay ci émergence développement boobu ñu nam nga dox ci ay jéego. ñu ngi ak le maire Doune Pathé ci émission gox bi moom la ñuy dalal tey mooy bokk moomeel bu Cambérène euh, monsieur le maire su nga déggee ngay wax intercommunalité li nga lu li loo xam ne gëm nga ko. waaw xam nga gox-goxaat yi suñ jëlee le découpage administratif bëgg tënk dëkk yi ci découpage la ñu bëgg duñ ko am. bi nga ñëwee da nga tombé ak le maire des Parcelles Assainies. Jamil Sané. voilà ñëw Cambérène ma accompagner ko ñu waxtaan ci les deux voies yi nga xam ni diggante Cambérène Parcelles ba Golf Sud dañ ko séq ñuy ànd ci terrain bi pour yeesal deux voies yooyu deux voies yi mu ngi tudd Seydina Issa Rouhou Laye mm-hmm. nekk ci buntu Cambérène presque mooy euh, entrée Cambérène ñu bëgg nag à partir de là mu nekk une très belle voie l'une des allées les plus belles du Sénégal ñetti commune yëpp seq ko waaw donc on est en train de dans le cadre d'une intercommunalité pour que gestion le suivi de de deux voies là ci cadre aménagement yi bëgg a def mu mën a am su ko defee littoral bi aussi ñoo ko bokk ñoo bokk presque ba xool marché yi. Mm-hmm. marché yi ñuy wax marché Gueule Tapée marché Naye Saro Seydina ci même périmètre bi la l' environnement ne connaît pas les frontières. donc war nañ mën a ànd lëkkaloo la zone du technopole ñu am fa ay projet viables avec des partenaires pour que population wu communes yooyu yëpp mën a sentir seen bopp sentir ni kat ñu ngi dem vers l' émergence comme ni ma ko waxee. teggi politique bi ne liggéey euh, askan wi euh, jàpp nga ni loolu dina ant bu baax bu fekkee ku lekk jàpp nga. waaw développement. Euh, war na mën a nekk. parce que léeg dañuy dem ba ci biir politique bi xaw a yàq mbir yi. waaw man de bu ma sañoon Euh, ñi nga xam ni yàlla dimbali na leen ñu tànn leen ba ñu fal leen am ci ñoom yaakaar euh, dañuy mën a liggéey mais lëkkaloo ak état aussi ndax euh, commune démembrement état la. juste donc warul mën a am une opposition bu ñu duggee carrément dans le cadre de la gestion de communes et des territoires. il doit y une vision c'est une vision au niveau central qui est traduite au niveau local état bi dooleel commune yi communes yi aussi am taxawaay bi ci war vis-à-vis des populations et vis vis de l'état man def naa décentralisation jàng naa ko ci cadre boobu laa gisee collaboration bi war a mën a am. moo tax nga jëmmal entre commune ak état du Sénégal donc pour dire que Cambérène le maire de Cambérène la commune de Cambérène l'équipe municipale qui a été élue est en phase en parfaite harmonie parfaite synergie avec l'État du mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax ci seen émission gox bi di dalal tey Doune Pathé Mbengue nekk euh, maire bu commune bu Cambérène léegi monsieur le maire Cambérène tam buñ ko waxee wax dëkkuwaay ku ne dëkkuwaay itam ni wér gu yaram. Mhm. aspect bu am solo la. lan nga ci fas yéene naal. waaw wér yaram sànq bi may wax priorité yi xam nga nee naa la priorité du noo bëri. mais santé aussi ci priorité la. Euh, ci loolu ñun yàlla daf ñu dimbali sax lu jiitu ñuy nekk maire dañ ci daan am ay jéego daan organiser ay 48 heures de consultation gratuite def nañ ko trois éditions pendant depuis ñetti at yëpp dañ koy def mais mu nekk ay journée d'envergure dañu fiy indi ay spécialistes yu mag. ci domaine yu bari ñu faj waa Cambérène consulter leen ñenn ñi ñu faj leen sur place ñenn ñi ñu référé leen ba ay fiche de suivi sax dañ ko doon def may leen ay médicaments di leen accompagner. kon yàgg nga xam vision ba ci wàllum santé. yàgg na la santé est une priorité et la santé avant tout avons l'habitude de dire donc santé bi suñuy priorité la bokk d'ailleurs bi ñu fi ñëwee fekk nañ fi un programme dans le cadre du PACASEN bu bëgg a renforcer la structure sanitaire le poste de santé et le centre de santé de Cambérène dañ ko fas yéene renforcer. on est en ñu ngi waxtaan ak ay partenaires pour xool naka lañ mën a doolele service yi nekk ci centre de santé bi yëpp ak poste de santé bi donc pour dire que am nañu yaakaar ni sax bientôt dinañ jot benn dotation benn don en médicament et en pro en et en médic en matériel médical pour renforcer suñu structure sanitaire yi donc comme pour diir que bëgg nañ ci am taxawaay bu mucc ayib. balaa nit ñi di dem di daw Dakar ñu fajee leen ci gox bi ba pare. waaw loolu mooy l'idéal parce que nit ku feebar li gën mooy mu am ay jumtukaay yu mën a jëfandikoo ci gox ba mu dëkk tekkiwul ni aussi euh, hôpitaux yi mag yi nekk ndakaar dañoo am solo ndax santé système la pyramide la donc ñu am ay jumtukaay yi nga xam ni cas bu bu laajee ñu référé la yóbbu la dans les plus brefs délais ñu def ko ci cadre boobu lañ jël ni ambulance priorité la ci suñu kàmb ci am am nañ fi mais dafay faral di panne bëgg nañ acquérir ambulance bu bees s'il le faut pour que ku képp ko nga xam ni tawat nga ñu war la évacuer dans les meilleurs euh, délais ñu def ñu def ko. ak euh, tolluwaayam est-ce que tey poste de santé yi nga xam ni yor na ko euh, waruñu ko yokk itam. waaw benn poste de santé lañ amagum bëgg nañ am beneen. vers quartier islam mbaan parce que ci vision bi dañoo gis ni axe boobu dafa xaw a sori centre de santé bi donc foofu bu ñu fa amee poste de santé ñu ngi ciy liggéey euh, day nekk lu baax ci couverture médicale bi nga xam ni euh, structure sanitaire yi war nañ ko mën a defal waa Cambérène yëpp. ci école lañ dendal école yi itam pàcc bu am solo la ku ne école ne éducation. Euh, tey am na politique bu la ciy xaar ndax lu am solo la. dëgg la école li ñu waxee santé avant tout noonu la njàng amee solo ci dëkk damay fa doon li ñuy wax jeunesse mooy avenir u dëkk donc la jeunesse les enfants doivent être préparés li leen di préparer nag mooy xam ci xam-xam ci encadrement ci savoir être ak savoir fair dëkk bu. sàggane sa éducation pour nga am développement dina jafe donc ñun ci suñu position de maire équipe municipale bi ñu représenté bëgg nañ lépp lu ñu am ci ay moyen une bonne partie dem ci accompagner les établissements scolaires. subvention yi di teel a ñëw école itam ñu daal di leen defal gën a améliorer itam qualité njàng mi. ñun man dama bokk ci ñu doon taxawee centenaire u ci comité de pilotage bi mais avec un partenaire Dubai pour World suñu benn mbokk bu baax bu am taxawaay ma ànd ak moom ci maire muy adjoint au maire Mamour Ndiaye nekk fa ak yeneen partenaire dajawoon nañ ay moy lu toll 12 millions réhabilité le l'école primaire Seydina Issa Rowal ay A et B defaraat tout ce ci école bi ba def ay ay jardin espace vert entretien bi moo posé woon problème bi mais ci 2014 2015 bi ñu ciy génn Cambérène l' école Seydina Issa Laye avait un environnement yi gën a baax ci Sénégal mm-hmm. donc taxawaay bu mel noonu lañu fas yéenee am ci maire bi bu dee réhabilité ay salle de classe bëgg nañ koo def uti ay partenaires yu ñu accompagner aussi ci dooleel établissement scolaire yi nekk biir Cambérène yëpp mais xoolaat aussi instrument de gestion yi comité de gestion de l'école lu am solo la saytu ko xool ndax mi ngi fonctionner dooleel leen ci ay outils yi xoolaat les enseignements buñ mënee accompagner ay cours de renforcement def ko je suis en de travailler avec le réseau des enseignants de Cambérène ñu ngi xool naka leen mën a association def benn association jàppale suñuy doom ndax suñuy doom suñuy jarbaat lañ ñoo nekk ci école te préparer leen comme ñun suñuy bàyyi ñu préparé dafa doon farata. bëgg nañ ci aussi dox ay jéego yu am solo ci cadre éducation. ci jamono joo xam ne école Sénégal dafa yëngu lool négociation yi demul cëng dikkul mbaylaar métti na ci diggante état wu Sénégal ak enseignant euh, en tant que maire ngay parent itam parent d'élève am na cri de bi ngay sentir. waa tout à fait di wax naa ko ci benn plateau euh, télé que vraiment bu ma gisee ñu paralyser euh, njàng mi. Euh, ci surtout niveau primaire damay am souvent lu ma metti parce que damay wax ni euh, les heures perdues mooy xam-xam bu bari ba nga xam ne xale yi dañ ko waroon jëfandikoo ñàkk ko bu ñuy wax quantum horaire ci ci ci ci ci ci ci ci ci école euh, dafa am solo quantum horaire loolu dañ ko war a surveiller ndax mooy heure yi nga xam ni xale yi dañ ci war a jàng ut ci xam-xam luñ ci góorgóorlu rek doyut donc c'est effectivement avec regret lay constaté ni euh, grève yi euh, vraiment dina euh, empêcher suñu xale yi jàng-jàng bu baax. lan ngay wax ñaari syndicat yi nga xam ni tey teggeeguñ mot d'ordre bi ci jamono joo xam ne juróom yi nee nañ d'accord nañ ñu ñëw continuer dem jàngale ji négocier. waaw man li ma gëm mooy syndicat yi war nañ bàyyi xel bu baax responsabilité bi gàllu seen loos samay wax naan c'est une responsabilité individuelle d'abord parce que jàngale vocation la man gis naa ay enseignants yu mësul grève donte dañuy nekk ci syndicat mais quand il s'agit d'abandonner les classes ils refusent parce que c'est un engagement personnel am na ci la nga xam ne certes ay revendication lañ ko war a teg ci table bi mais am na la nga xam ne aussi pour man bu fa tolloo pour négociation yi avancé état am lu mu doxale def effort aussi parce que l' état doit faire beaucoup d' effort ci cadre éducation ci cadre mettre les enseignants dans les conditions mais bàyyi xel xale yi. nañ bàyyi xel xale yi c' est une responsabilité collective. képp kuy jur képp kuy am responsabilité état képp ka nga xam ne da nga kat man jàngale mooy sama métier war nga yëg ni ngan di responsabilité gàllu na sa su ko defee lépp loo def ci xale nag day feeñ ci réew mi donc ñu gën a bàyyi xale yi xel euh, qualité bi leen di jàngalee ñu gën ci bàyyi xel. ndax dis-moi quelle jeunesse tu as donc njàngale mi c'est daal nañ ci gën a dox ay jéego. ci wàllum infrastructure monsieur le maire parce que des fois dañuy wax ni infrastructure dañuy bàyyi esquiver sport bi wàllum infrastructure jumtuwaay yi te moo lay itam ndaw lu am solo la ci réew. macha allah damay delluwaat ci samay priorité yi ma la waxoon. à Cambérène on a trouvé une situation dañoo fekk situation am lépp priorité la. Euh, ñun dañoo bokk ci ndakaaru di gis ay infrastructure sportive yu am solo di am ci yeneen dëkk yi ci yeneen communes yi ci yeneen département yi beneen di jooy stade depuis des années. amu leen ba tey. amuñu stade municipal am na nag terrain bu yaatu macha allah plus de 3 hectares am nañ promesse ferme et l' appel d' même a été lancé pour que ñu réaliser le stade de Cambérène enfin loolu la ñu bëgg tey dañ ci fas yéene équipe municipale bi dox ci ay jéego. le plus rapidement possible ñu procéder à la pose de la première pierre du stade municipal de Cambérène di remercier nag état du Sénégal ci doléance boobu mu mu jël def ko priorité parce que kilifa yi remontées yi ma am yëpp ci njiitu réew mi ak ci ministère du sport mooy pare nañ pour réaliser le stade municipal de Cambérène ñu ngi koy xaar parce que ñu ci dox ay jéego euh, le directeur des infrastructures sportives jokkoon nañ de na ma incha allahu bëgg na dans les de délais incha allah ñu procéder à pour commune bi itam mën a am koom est-ce que yéen a ngi xalaat ay terrain yi nga xam ni proximité lay euh, itam ay am ci rentabilité. effectivement xam nga léegi sport du lekk mbayal bu yaatu bu nit ñi di football di dem. monde bi mooy évoluer comme comme la surtout. voilà justement léegi euh, gis nañ ni euh, boo amee terrain synthétique va mën nga ko valoriser xale yi équipe yi nit ñi dañuy ñëw di fay. Euh, dégg nga maam di def seen sport ci anam yi nga xam ni tey moom la monde bi foofu la monde bi toll gazon synthétique bëgg nañ ko Cambérène bëgg nañ ci suñu programme ñu ngi wax ci cadre mandat bi cinq ans yi bëgg nañ au mooy mu am ñaari air de jeu à synth à gazon synthétique donc ñu ngi ciy dox ñu ngi ciy am nañ ci ay partenaires yu ñu ciy waxtaanal pour que. Euh, sport bi nag dafa yaatu. ñaari bari na. mais boo mooy aire de jeu mooy wax aire de jeu boo déggee ma ne aire de jeu ça veut dire que toutes les disciplines sportives mën nañ ko pratiquer ci ay aire de jeu. soo amee infrastructure bi am cadre bi rek mën nañ fa def basket mën nañ fa def euh, arts martiaux mën nañ fa def ay salle euh, de de musculation mën nga fa def leneen li nga xam ni ndaw ñi dañ ko soxla parce que aussi euh, jeunesse dafa soxla fu muy dem dafa tàggat yaram voilà dafa soxla loolu loolu ci bëgg nañ ci liggéey suñu plage bi aussi cadre bu ah, extra mën na jaay de ndax classe plage bi yéen a ciy gis seen bopp li fay nit di ñëw di fa ñëw di di di ak njaay mi foofu est-ce que recette yooyu yéen a ngi koy sentir. waaw ñun suñu cadre am nañ littoral bëgg nañ ci liggéey géetuluñu sax recette yi mais defar littoral ba mu rafet parce que on a quand même une des plus belles plages. monsieur le maire littoral yi boo xoolee Europe nu mu mel. waaw waaw ay taxawaay la léegi nag. foofu euh, ci maire yi maire maire parcelle bi Diaboune Sané wax nañ waxtaan nañ ci parce que dañoo bokk euh, littoral bi xool naka lañ mën a amee un projet ba nga xam ne projet commun projet commun sur tout le littoral bi nga xam ni seq nañ ko euh, loolu ay taxawaay la dañoo gëm ni euh, buñ ci yëngatoo liggéey ci mën nañ am ci plage bi ay parcours sportif yu rafet yu baax mën nañ am aussi ay espace yam dañ koy aménager aire de jeu yooyu may wax mën nañ ci aménager ci plage bi am nañ macha allah plage bu yaatu mën nañ ci pourquoi pas def du sport avec beach soccer euh, aménager benn partie ba nga xam ni même des compétition euh, nationales ou internationales mën nañ ko ci tenir donc yooyu yëpp vision la gëm-gëm la ñun yàlla dimbali nañu am une équipe ba nga xam ni vraiment bëri na ay compétence compétences yooyu yëpp lañ bëgg mobiliser pour lépp luy modernisation ñu taxaw ci ci Cambérène incha marché yi bien sûr marché yi mënta ñàkk ci dëkk ñun nag am na benn marché ñu waxtaan pour aussi teeru teer yi nga xam ni mën na nit teeru waa Cambérène la euh, traditionnellement euh, marché yooyu fa nekk muy marché Gueule Tapée ak euh, kii ñu xool naka lañ mën a amee un système boo nga xam recettes yi am foofu dina mën a jariñ aussi Cambérène parce que bu ne marché Gueule Tapée waa Cambérène yëpp dañ ko jàppee seen marché marché bi ñu am fii nag muy marché bu ndaw bëgg nañ aussi moderniser ko muy marché Cambérène bi nekk fii ci biir dëkk bi bëgg nañ ko yeesal. waaw bokk na suñu programme yeesal marché bi su ko defee suñu yaay yi fay jaay suñu sœurs yi fay jaay la plupart suñu frères yi fa am ay cantine ñu mën a nekk ci cadre ba nga xam ne aussi cadre bu baax la loolu. ay tabaxub centre commercial dafay indi koppar bu baax ci ci ci mairie ndax yéen a ngi xalaat itam pour sa tamit doo di génnee rek da ngay itam foo xam ne di nga làqar ci tuuti. waaw loolu il faut ñu am politique de recette. mën a recouvrer le maximum de recettes possible donc projet bu ñu mën a teg commune bi mën ci am dara loolu dañ koy dañ ci dañ ciy dem avec le partenariat public privé c'est possible infrastructure yi nga xam ne dañ ko war a jëmmal Cambérène pour que maire bi mën ci profité parce que maire yi day faral di fàttali ni mooy le bien public kenn moomu ko du xaalisu ma sàmba du xaalisu ma demba xaalisu commune bi la donc commune bi lu mu mën a teg ci ay projet pour mën a am ay recette mën taxawee soxlay askan wi da ko war a def loolu aussi ñun priorité la ci ñun. ngeen mën a génnee xaalis pas du du du ñu jiital xaalis bi parce que commune aussi amul vocation di def di profit. li mu li mu vocation mooy liggéey pour askan wi sentir seen bopp nekk ci cadre bu baax nit ñi loo bëgg a def nga mën a def ko ci anam yu mu gën a yombe boo mënee aussi def politique de recherche ba nga recette ba nga xam da ngay mën a am des moyens moye yi mooy tax nga gën a mën a liggéey donc loolu aussi ay taxawaay la yoo xam ne fas yéene nañ ko am ci Cambérène. Cambérène di dëkk buy màgg buy dox itam. Euh, tey su ma la waxoon monsieur le maire ban équipe euh, municipale nga fas yéene àndal wala yéen a ngeen moom ci liggéey wàllum gouvernance itam lu am solo la. Mhm. waaw dañoo fas yéene am équipe municipale bu dynamique. parce que liñ fi lim yëpp ay projet la. projet la te équipe municipale bi moo ko war a taxawee. bi ñuy def suñu installation on l'a suñu coalition ñu peut-être arrivé premier conseil yi foofu la ëppee woon mais ñeneen boor yi nga xam ne aussi indi nañ ay conseillers dañoo bëgg am une équipe municipale ba nga xam ni identité yi origine yi fii laa bokk faa laa bokk du am ñun ñëpp ay Camerounais lan te dañoo bëgg incha lii projet lii programme pour taxawee mission bi ñu mën ko taxaw ensemble en dehors di conseil municipal de l' équipe municipale aussi am na yeneen kuréel le comité des charges ay mag yu am taxawaay suñuy ndijaay suñuy papa xam ne am nañ xam-xam am expérience nekk à la retraite mais bëgg a servir aussi gën a accompagner ànd ci ànd liggéey le collectif des délégués de quartier imama bi li kuréelu jeunes yi les associations fekk nga fi may remettre association Cambérène yi du matériel de nettoiement parce que dañoo gis ni les jeunes euh, ils s'organisent ci quartier yi voilà di ñu ngi organiser wu sax di nettoyer di defar donc loolu lañ bëgg a accompagner mm-hmm. jigéen mi aussi am nañ fi femme di leer am nañ fi les amazones am nañ ci Fofka am nañ ay association yu bari ya nga xam ni ku nekk da nga am ambition defar participer donc c' est une occasion boole force yooyu yëpp pour taxawal Cambérène bu yees yow tamit di conseil de quartier sa yitte la tout à fait conseil de quartier euh, comme ni ma ko waxee sànq wax naa délégué de quartier yi su ma nee délégué quartier yi rek maa ngi cité quartier yi parce que gouvernance su quartier yi aussi mooy une gouvernance de proximité dañoo fas yéene am une un système de gouvernance boo xam ne délégué de quartier yi dañ ciy am rôle bu am solo bu ñuy joué donc di leen réhabiliter réanimer doole laat les conseils de quartier su ko defee maire bi li mu war a taxawee sur tout le périmètre communal mu am au niveau des quartiers ñu koy mën a taxawee à l' échelle des quartiers incha allah. maa ngi gis chargé de com bi mu may bu ma ci heure bi waaye presque euh, politique mënuñ nga ko ci ñàkk élection législative mi ngi ñëw euh, monsieur le maire ñu bëri dañ ne yow APR nga bokk. Moi, je fais partie de la mouvance présidentielle. Je suis le directeur du partenariat avec les ONG. Je suis au cœur de l'État. am na fu ma ko wax maa ngi ci biir état du Sénégal Ah, moo tax kay bañ la moo tax kay bañ la tabbee liste am ñi ndaw APR yi nekk fii ñoom dañoo bañ. nu ñuy bañee xanaa boobu dañoo fekk. xam nga ñoom foofu. mais xam nga mbir mi du ay maa fi jiitu fii lay toog da koy mate mën ko taxawee loolu moo tax ñu ne ci kanam macha allah en toute modestie ñun ak président ñoo bokk camp ñooy ànd di liggéey. dafa am confiance ci man jox ma bannière Benno Bokk Yaakaar ci Cambérène am confiance ci Cambérène ñu nekk dans une dynamique unitaire ànd ak sax yeneen force politique même dans l'opposition donc Cambérène ñu toftal ci yow taxawu la bokk. ki ñu toftal ci man ci cadre commune. commune xam nga bu ne adjoint au maire. Mm-hmm. en lañ ko defee waxtaan suñu biir. ki ñu jàpp ni am na compétence yi am na taxawaay bi pour mën a accompagner l' équipe noonu noonu ko defee dans le cadre unitaire comme ni ko tàmbale woon rek ba léegi ci loolu la ñuy liggéey te noonu lañ fas yéene liggéey pour Cambérène am ndam Cambérène am ndam. kon daal nëbboo ni yow affaire bi yaa ci biir. je suis de la mouvance présidentielle je suis de Benno Bokk Yaakaar te damay ànd ak président di liggéey. Yewwi Askan Wi mi ngi fidee ak élection législative yi ba tiitoole. non tiituma compétition bu doon buñ tolloo ci jongante ci cadre politique dañuy jongante ci cadre politique mais ñu ngi génn ci élection boo yàlla am may nañu ndam gëm nañ ni lépp lu nekk suñ kanam ci wàllu compétition politique aussi dinañ ci am ndam incha allah. Dakar fii gis nañ nu résultat yi demee waaw. mooy respecté di félicité ñi gagné mais di encouragé ñi nga xam ne aussi dañoo ñàkk xam ni li am solo ba am solo mooy population yi euh, sentir seen bopp yëg ni kat ñañu fal mérité nañ ko am nañ taxawaay ba ca war. suukar ceeb diwlin conseil des ministres Macky Sall wàññi na ko euh, ngay responsable politique soulagement la ci population bi. sànq dama la man ak Macky ñoo bokk camp ñoo far te mesures mel noonu bokk nañ ci ñu ko suggéré pour askan wi féex. nit ñi sentir ni kat président mi ngi seen wet état bi mi ngi seen wet te état du Sénégal bi ma xam Macky Sall bi ma xam ku yëg askan wi la chaque jour que jëfee mi ngi xool lu mën a jàppale askanu senegal gaa ñu ne inauguration bi moo tax gaa yi yóbbaale ko di ànd ak moom. inauguration bi aéroport bi flotte sénégalaise. bi nga xam ne mi ngi commencé naaw di dal ci capital yi gën a mag ci monde bi loolu vision la gëm-gëm la Macky mi ngi dox ci luy pousse Sénégal vers l'émergence loolu mooy réalité bi ku nekk nag mën nga am noo gisee mais li wër te wër mooy buñ xoolee les faits ces projets Promoville PACASEN Pimon yooyu yëpp ay programme yi nga xam ni ci lan lenn rek lay dox améliorer les conditions de vie des Sénégalais moo tax mu gëm ni peut-être ñi xamul wala ñi am yeneen considération mais bu ñu jugee ces faits et les actions de tous les jours yi muy posé lu jëm ci dimbali dooleel yóbbu Sénégal ci niveau ba nga xam ni foofu la dëkk yu mag yi toll. mais mbirum ñaari tur yi sonal na ko de. mais ñoom ñaari tur yan. waaw ah, ñu ngi wax bëgguma tur tur bi mais ñaari tur yi ñu naan homosexualité sonal na ko de sàmm ji koy chaque jour ñu ne waxul lu leer. waxul lu leer bon am na la nga xam ni man mënuma ci prononcé wu mais li ma wóor te mooy wax na waxati na ñi koy jëmmal ci wàllu. état bëgg ñu criminaliser ko. waaw loolu position la. position la ñi nga xam ni loolu lañ gis loolu mën je respecte leur position mais comme li ma waxee démocratie la Sénégal di doxee dëkku Sénégal dëkku diine la ci chrétienté ci musulman li fi gëmul yàlla lu néew lañu donc man cité religieuse bi ma nekk ils tiennent au au respect des valeur morales les valeurs de l'islam les valeurs de l'humanité man ci loolu loolu laay mooy sama pas-pas loolu laa gëm te lépp luy mën a jëm ci renforcer valeurs yooyu Sénégal dañ ci war a taxaw te mën gëm naa ni Macky Sall ci loolu la ne. émission bi jeex na ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax Doune Pathé Mbengue yaa nekkoon suñu gan ci rajo Rewmi FM ci émission gox bi ñu bàyyi la nga tàggoo ak mbokki auditeurs yi ak euh, askan waa Cambérène. jërëjëf mon frère di gërëm réew mi ci occasion bi ngeen di jox ñu communiquer ngeen fekk ñu ci terrain bi jël seen temps bàyyi ñu bañ terminer ñu waxtaan may terminé rek di gërëm di sant mboolem kilifa yi Cambérène en commençant ci par le xalif général Mouhamadou Makhtar Laye di ko dokkeel ci wàccaayu appel bi di souhaiter à toute la communauté layène un appel mais di invité mboolem Sénégal ci diggante Cambérène Yoff Ngor ndax sëy naa limaam mu appel bi dafa ni aay ji boo daaya laay yaa marcharal insi wal jinni inni rasulullahi ilaykum appel bi humanité la ko adressé donc tey appel bi yàgg na ba muraille de Chine Seydina Limaamu mbégte Afrique mbégte xeet wu ñu la war a doon ndax appel boobu mu appel dégguñu ko feneen fu dul fii ci saw ginnaaw ba yonante ba wootee màkk donc xéewal la ni Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul nekk xéewalu Sénégal ni El Hadj Malick ca Tiwaawan nekkee xéewalu Sénégal ni El Hadj Omar Foutiyou Tall nekkee xéewalu Sénégal noonu la Seydina Limamou alayhi salaatu ak wooteem bii nekk xéewal ci senegaal donc maa ngi souhaiter un bon appel à tout le Sénégal à toute l'humanité jërëjëf di ko sant bu baax a baax Dun Pathé Mbengue nekk maire bu Cambérène moom lañ sekkaloon jotaay tey kon mbokk yi ñu sant leen gërëm leen ci seen àndax ñun jox leen dig daje beneen dimanche ak beneen invité incha allahu rabbi